الذي خلق فسوى su jëriñ leen bu am ñu génne leen saraxal zikri sarax yi moom koor wu ñu woon ci lu war wax yi moom moom koor saamu saala am turi muslimin war bépp julit saala boobu nga xam mooy ñeenti guddu suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zakari war na góor war na jaamu te biir yi war na ko mat te soxla yi war na ko daw ñoo ko ñu sax suuf yokku ñu dana génne ay sax su nit ki ànd ak si yéen ci boppam boo amante ne mu ak ca fenn dana war ko mu àccoo ak dundam képp koo xam ne nag dund na war yaa ko ngay dem te xalaat ak ci jege ñaare aw zawjee ci wala ci dencante aw lakken wala yaam waxtu fa ñu dem na gën a góob min kulli ashiraati dem ba rek shi ga abu tarihi mutum salaatu ñëpp julli la yaa an yaatiya ba koy dikkee al imaam koy imaam aw yaqum wala taxawal ak salaatu julli la wala du akbar allahu akbar allahu akbar topp na boo génnee sa kër nga di ko wax ba bi ngay doo ngay àggee te jumaa ja wala ba koy imaam bi ñëwee wala ñu taxawal julli gi waxoon jaa ذلك loolu aw forme moo gën a bil ajri ci yoon mooy képp ku liggéey yoon booy dellu nag delloo beneen yoon ngir wane màggaay lislaam ci ñaari yoon yëpp wala ngir sarax ci yoon yi sarax miskin ci yoon wale wala ñaari yoon yëpp seen la ak moom ci mën a doon rek jar na ko ak saa yi saa bi waxoon sànq nag moom la ñu pour leeral ñu ko mooy arbaatu rabbaani mooy ñeenti góor ñu dugg ci mu dem moom yonent bi sallallahu ñoom bu jëlee ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne di sécurité malaaka yi dañuy taxaw fu nekk ci yoon yi di wax nit ñi ne yéen ñi nga xam ne yàlla seen borom bi nga doon lépp jël yoo xam ne yëgoon nañ ko moo tax bis bii dañ ca kaw asamaan yow mu jaay sa dinañ ko tuddee lan mooy yàlla nee na digal naa leen pour ngeen or or ngeen ma digal leen pour ngeen taxawal naa fi nag taxawal leen nga xam ne mu maa leen leen jël الأخرى لمنظمة شوية دمام لحق المسيء في حق كريم فتبت عنه وتسقط الأرض في حق المعسرين في حق كريم جبلتهم فأمره ويسمون يلبس النار إلى الزنج فيتار بس تأمينا سنة قرن فيتار بالتنبيش قدس والثياب الأجرة فإن naag àjjuma àjjuma lu wees taamu na taamu boobu nag kenn du ko bàyyi ngir ñagas ñagas lu te fekk yaa ngi ko mën kenn du ko bàyyi ngir dëddu àddina wala ñagas ñagas lu wala mos si dox yow a ci ñu lay kay ba nag boobu war sa mu def ak mu daje la ali ci moom waroo ko war ngay ma ko yi si buñu ko gannaaw ngir naka war si la doon taamu xaw ma xaaraa gis mu am ko gis daalu wa kaana Mustafa alayhi salaatu wa salaam mu ngi doon tubi wa kaana bu gàtt amee nit ñi taw wala leneen mën nañ koo jullee ci jumaa ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ñu koo xam ne sa biir jumaa bi la ko jullee te li ko waroon mooy taw su fekkee nag benn gàtt amut nga dem ci dëneer la mooy li gën a war mooy li nga xam ne sax moom lañ bëgg tey loolu taajanu yow wa qaala rahman alayhi salaatu wa salaam ne yonent bi war a ne شهر رمضان وير koor معلقة أجلاو بين السماء جميلة أسمان والأرض يخسف ولا يرفع درجة فوق إلا بزكاة الفطر لنفسك أن يقع زكاي wuri koor وعن جنان سمو صلى الله عليه وسلم إن الله لك يعلم إن الله لك يعلم يطلعون نقول بالعلم ilal ardi jëm suuf yàlla bisu tey bii ak bisu tabaski mooy dafay yóbbu ñu nekk ci kaw suuf ba dund génn leen mel malaas yi ci kër yi daf ànd ko mu génn daf leen ba wax ko yërmande ñoom ñu yàlla dem si mu ñëwaat bii seen tey wala dasa dara nekkul ci te suuf ñu ngi saa si gën a jigéen ñi mooy gën a jigéen ñi itam dara nekkul ci xataa Sénégal Sénégal ñëw waxtaan nekkoon na mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàqu ñu yàqu ñu leen musalla daana génne jant ñu lay kaay ba al awaatiqa jant jant al awaatiqa jant yi wax daara ak jiigi wal xuyada ak borom gërëm gi jiigi suba ba dawaati ko ñu ak ñaa xam ne dañoo tax wax seen bari dañuy fi génn ñëpp daal wax nañu dañuy gis dañ di imam Malik boobu dafa ñoo moom la islam mooy daw nañ góor ñi waaye nag ñu jël góor ñu jigéen ñi boo yu ndaw sopp na te xaaju sadaqat yi li des yow ci bis bis bu kasiiran bi daa ji bëri lu bëri nag ci ko xamal bëriwu nag ëpp nag mu bëri ci ko am dara yàlla koy dund ko kasiiran la wax lu bëree bëri ko dund wa qaala wax na mu yàlla jënd mi xaayin màgg na moom yàlla nekk duróoni tudd leen ma ko ko ma tudd leen ne ko ko tuddee ci boppam ko tudd ci boppam ko tuddee ci mbooloo dalee koor mu gën ci koor mu ci koor bu ñëwoon ñu dox bu ñëwoon ñu di waaxu kon nag ci yàlla dañ bëri ñu gëm ñu dañu xam la ilaha illallah muhammad rasulullah tudd yàlla nag ci lañ doxe wilaaya wilaaya boo xam ne ko taxal nañ ci yàlla lañ ko taxal ko lañ ko denc moo tax lépp loo xam ne mu ne ci dëgg yàlla